lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara pour CD asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, délégation CD yi ñu ñëwoon tey directeur général bi monsieur Adat ak président conseil d'administration monsieur Chemali ak maam Cheikh Sey directeur administratif ñu ñëw desefeek suñu xarit suñu frère Serigne Saliou Thioune Euh, sëñ bi yàlla dogal ak jaxasoo am seede mu liggéey Masaalikul Jinaan yi am si kóllëre googee rek dañuy dundal moo tax tey ñu ñëwoon siyaare sëñ bi fii si Poroxaan am yéen itam fépp mu nekk ñoom siyaare ko fa donc euh, am na kóllëre gu dox diggante séeréer ak yoonu murit kóllëre googee fu ñu toll ñu koy suuxat bëgg itam liggéey bu yoonu murit di liggéey seede ànd koog ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullah. way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara